ministre de l'intérieur mais de l'intérieur là, il m'a mais ministre de l'inférieur l'œil de la commune Madame ah, wax ni fini fi ne ci ministre de l'inférieur à conseil de la démocratie euh, de la démagogie si ah. ma xam ni ñett yi nag réew mu ñu séq ku bëgg a defar réew ma bay boo nga taxawaat waaw ñu téléphoné ministre de l'intérieur bi nekk Maroc pour ñaan ko bu ma ñëwee foofu ci aéroport bi ñu arrêté ma foofu ma ñëw ñu ubbi sama passeport ni ma passeport bi validul te passeport bi tampon aéroport bu Paris mu ngi ci passeport bi. l'œil de la ma xam ni bu validul woon xanaa ñoom bala ñu koy gis xanaa waa Paris gis ko ba noppi te seen cachet mu ngi ci. ñu yendul ma ca aéroport ba toute la journée di dugg ak a génn ministre ba mujj ñëw ñuy dugg ak a génn yu kenn xamul benn comédie boo xam ni ma jékki-jékki ñu ne ah, comme léegi passeport bi validul dañ lay jël delloolu sa réew noonu ci policiers yi newoon ci aéroport bi am ci kenn ko xool ba mu wóor ko ni ñi muy ragal kenn nekku fa mu def ma nii ma ñëw mu ni ma ça de chez mën naa lii xew ci seen réew la jóge ñu nag ci biir brigade bi am na ñu ci d'accord ndax deux choses bu jëkk bi mooy ñoom du ñu am seen problème ci seen réew di ko régler si fii bu ñaareel bi mooy marocain yi nekk foofu di fa liggéey kii nii buñ ko fi arrêté fii ñooñu ñëpp seen bakkan a ngi ci xottu gerte moo tax ñu ne leen ñun duñu ci d'accord pour ñu di ko arrêté bu dee da ngeen dem nag ba sës xamuleen lu ngeen di def dugal leen ko ci avion bàyyi ko mu dellu ci réew moom mooy xam lu muy wax ak ñoom ci passeport am ngeen noté boobu ñu jóge ca ñu baax ñu tedd ñi. l'œil de la commune. seen mag war jóge Algérie pour ñëw Sénégal. mu wax ni. dafa yittewoo daje ak al mustarchidin bu sañoon. ñu ñëw recevoir ko foofa ca al irshad ñu préparer visite ba invité ñi ñuy invité ñëpp fekk mu ni orchestre daayire bi façon bi muy defee musique def ko neex bu sañoon bu bu ñëwee ñu indil ko orchestre bi ñu defal ko ay morso te ñu enregistreel ko ko pour mu yóbbaale ko ñu préparé yëpp defar ba ñu ni dimanche la war ñëw ñu xëy xëy rek moom mu téléphoné moom shérif bi dat ni ah bal maqade. de dootuma mën ndax sunu ambassadeur daf ma wax ni ma le gouvernement algérien ñoo ko téléphone Nico. shérif bi warul dem foofu maanaam warul seet si Moustarchidine te kon nga xam yëf yi fan la jóge ñu téléphoné ma wax ma ko ma ne amul problème moom moo ñaanoon pour seet si ñu pare woon nañu pour teral ko mais comme noonu la deme yëpp at problème ñu daal di arrêté yëpp cadeau yi ñu jëndoon yépp pour moom ma ni ñoom Oustaz Cheikh denc leen ko ba gàmm bu gàmm jotee dina am ci ay bokkam yu ñëw ngeen jox leen ko ñu yóbbaale ko donc boobu di beneen ngeen war ko noter ma toog am sama benn nit bu nekk ci service secret yi ni ma jamono yi ma ne ko ah mu ne ma bul dem Mauritanie ma ne ko lu tax mu ni ma gouvernement bi fii dafa am complot bu ñu comploté te moy amna ay colloque yu ñuy def ca Nouakchott dinañ la invité ci colloque yo mais bul dem parce que li ñu bëgg moy buñ la invité ba nga dem ci colloque ba amna ñu ñuy demander pour ñu enlever la te buñ la enlever fii ak deux mille xam fuñ la dugal. waaw ma lay laaj ana lu xew ñoo am conférence Gambie préparé suñu conférence yóbbu sunuy matériel ba mu des 48 heures ñu jékki-jékki ni Adama baro def na discours nee na interdire na bépp événement bu war a am fii yépp te fekk boobu dafa ñëw Dakar ba jóge fi fa lañ ko joxe instruction yi ba sunu matériel ak yëpp dañuy mujj defaat ko ci ay remorque pour ñu delloo si ko Dakar bu ko defee yooyu nag yu yu bare yooyule le ba fan yële passé sama mbokk mële woo ma téléphone ni ma Mahmoud Saleh nee def la soxla mani mbokk mi boo gisee Mahmoud Saleh nga wax ko ni ko maa ngi koy jaale colonel Malick Cissé bi mu daan àndal di ñëw fii te bi mu faatoo ba léegi jàllewuma ko loolu waxin la ndax ku toll noonu ci yow mu daan ànd ak moom mu faatu te talul sax jaale la ko ba noppi ni def la ñàkk fay dàng ci di ko di ko tontu waaw dama xam naa affaire ba demee yépp ma defe ni nag yooyu yépp bu ñu ko seetee capitaine mii am na ci wàllam dafa ñëw keroog sax ak nervosité bu nga xam ni dañu mujj di sax mu ne ma man nit ñi yëg naa ne ndeke dof dëgg lañu ma ni ko ah lan la mu ne ma ndax li ñuy cherché mooy ñu jël ma man dóor la dóor ma ci sa kaw sa njabootu bopp dafa ne nag yooyu yëpp bu amee te am ay nit yu defe ni ci sen xalaat moy way jubo jubo le président mané ban président ban dafa tolok ci walu diplomatie am na nu ngeen gisee yëf yi te Serigne Cheikh dafa am baat bu mu wax man nonu la déggee seen action Serigne Cheikh nee nit bu la togné te foko gis dawal mbéj néna bu fayu joté du neex bayiko ba fayu jot rek mais bul def foo ko gis dawal mbéj jaru ko waaw bés a ngi ñëw incha allah yi ñu naqari woon yëpp sunu gannaaw la ñuy féete incha allah waaw bu ko defee kon nag mu ngi guddi sax bi xam na pann yi ñu am moo ñu xaw a tardeel tuuti xam naa comme suba ci bëccëg bi am na waxtaan xëy na bu suba ñu seet liñ ci mën a yeggale ñu yeggale ko ndax mu ngi guddi te nit ñi dañuy soxla récupérer pour suba ñu mën a ñëwaat yeggale seen waxtaan waaye ma di leen yéegal rekk ni seen teewaay fii lu rëy ci njaboot ji la parce que dañoo bokk lépp l'œil de ànd di xeex li ñuy xeex xëy na am na ñu naan waaw sëñ Moustapha de moom kenn gisu ko wala kenn déggu ko li ngeen am yépp maa ko def wala bokk la ci ëpp maa ko def te ku may indil kaamil ma waat ko facto tolloog rek nak ku tam sàcc mom ñun lolu xam nañ ko bu yagg te Serigne Cheikh ak Senghor la woon Serigne Cheikh gagné élection yi ñom Senghor sacc résultat yi donc lolu duñu ñu jamono yi ñuy ànd ak Ablaye Wade am na élection yu am ñu ñu gañe ko ñu sàcc résultat yi te keroog góor gi woo ma woo Ablaye Wade ñu ñëw mu ni dem leen ngeen former seen gouvernement wu bopp waaye ma gis ni ñiñ ko séqaloon mel na ni dañu ñemewul yi affaire bi te mooy forme seen gouvernement wu bopp bañ ca jógee ñu waxtaan ci maag moom ma defe ni kon nag baatu yeew wi askan wi gisuma ci jamono bi lu ko gën a jaadu ak lu ko gën a am solo parce que lépp lu ñu mën a def te ànduñu ko ak askan wi presque dootu ko jar waaw bu ko defee kon nag ngeen jàpp ci li ngeen nekk rekk

fa tabaarakallaahu jàmbar dëgg lañu waaw ah. xalifa boo gisee kon Barthélemy du question sax contribution bi mais dañu bokk lépp donc ñu accompagner ko farata la incha li ci des nag mooy njaboot yi kenn ku ci nekk taxawaay boo amoon da ngay yokk taxawaay ba ndax am na loo xam ni jeexamul waaye nag sa yaa ci yow bese nga ci ëllëg yàlla dina def li ñu bëgg incha allah